Khalifa Ababacar Diop euh, maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay maam Fatou Thiam. yow yaay coordonnateur euh, Pastef Mewane nekk itam président commission sociale bu FPD di force pour le développement de Mewane alors euh, mun nga ñu ñëwal xalifa ci xew foofu rawatina ak ca Tobène nga xam ni ñaari fan a ngi nii daanaka jàmm amu fa ñu bari ci gox ba teg nañu leen loxo coowal suuf diggante ñoom ak ICS moo ko waral. waaw maam Fatou ñoo ngi lay remercier ci invitation bi. di nuyu seen auditeurs yëpp euh, di la wax ni la vraiment population Mewane fi ne nii li muy dund métti na lool en l'occurrence la popula euh, le village de Tobène tey jii nii démb ba tey waa gendarmerie ñu ngi assiégé dëkk ba euh, di tëj waa dëkk ba kenn mënul dugg kenn mënul génn kenn mënul dem tool ci population yi amuñu lu dul tool yi li ko waral nag mooy ICS les industries chimiques du Sénégal moom moo fa ñëw suuf si nga xamante ni dañ koy bay te ñun foofu bay dunde lañ xam amuñu beneen activité bu dul mbay moom moo occupé suñuy terre euh, illégalement moo ñëw nungu suñu suuf euh, dina daan faral na daan na ko faral sax di def waaye booba euh, da daan indemniser population bi yaakaar naa bari na population yu jógee foofu xam ne leen indemniser waaye nag toobeen gii tey dañoo ñëw bëgg koo envahir illégalement te indemnisation du ñu wax ni mu lañ bëgg a fay population bi d'accorduñu ko population bi d'accorduñu loolu ndaxte hectare bu ci nekk na leen bëgg a fay million population bi nag ñoom li ñu bëgg mooy ni ko defee woon ca mbaar def ko ci yeneen dëkk yi nga xamante ni hectare bu ne fay nañ leen neuf millions yi ñu hectares yi ñu fay leen sept million ñii hectares yi ñu fay leen onze millions loolu la population bi bañ léegi nag le ministre moom Aly Ngouille Ndiaye ñëwoon na fa bi ñu ba ca bi mu ñëwee négocier ak ñun moom nangu wan na ni barème bi baaxul le ministre nangu wan na ni barème bi dafa dafa faible lool dafa ndaw waaye na nat ñu ni ko nag ñun nat tool boobu mënuñu koo nangu fii réglé wuñ problème bu barème bi léegi ñu ni léegi nañ continuer discussion yi nan continuer waxtaan bi à notre grande surprise démb ñu xëy yeewu rek yem ci waa gendarmerie ñu occupé dëkk bépp wër ko ñu xëyan di dem tool sax dañu leen nëpp leen léegi responsable ak chef de village yi ci dëkk ba chef de quartier yi ñu jàpp leen tëj leen ci leen tëjee Cheikh Fall nga xam ne ni euh, mouvement bi ma may waxee nii moom mooy le coordonnateur tëj ca Cheikh Top nga xam ni mooy le vice coordonnateur en même temps mooy le porte parole quand de de cette population euh, wax impactée donc fii daal la situation bi toll. actuellement nii ba may waxee ak yow force de l'ordre yaa nga fa kenn mënta dem kenn mënta dikk vraiment toole la ñu jaay mais ca euh, ñu dañoo yaakaar ne état li ko war a tax a jóg mooy aar population bi yor seen kaaraange waaye yor seen jàmm. waaw lan moo waral ñu teg ñooñu loxo ndax dafa am lu ñu def wala dañoo. ñooñu defuñu dara à part taxawal seen population ñooñu combat bi ñuy combattre combat patriote la. c'est un combat patriotique comme ni ma ko waxee léegi ci français. seenu askan moo leen tax a jóg dooleel seenu askan moo leen tax a jóg jóg aar seenu askan moo leen tax a jóg ca mouvement bii di FPD tamit loolu moo ko jox ndaxte dañ ni mouvement la boo xam day xeex injustice di dooleel doole di dooleel développement ci dëkk ci ci ci ci ci ci gox bi waaye ICS injustice boobu ICS ci jiitu ndaxte mu ngi occupé suñuy ca indemnisation bi muy indemniser baaxul. ñooñu nag ñun ñoom ñaar ñu ñu arrêté ñoom ñoo coiffé euh, sunu mouvement mooy la FPD. Hmm. ñu yaakaar ne dañ ko def ngir casser euh, le mouvement ngir casser euh, dynamique gu mouvement bi mais nag il se leurre dañuy trompé wu parce que ñun nous sommes plus que déterminés tey jii nous sommes en train de nous organiser et nous sommes plus que déterminés aujourd'hui duñu bàyyi le combat jamais. Hmm. justement mhm. lan moo nekkoon xëy na taxawaay ministre de l'intérieur ci ndox ndoxteel ga ak lan ko indi woon euh, ba tax le ministère bi mu ñëwee wax dëgg fa yàlla il était venu avec un projet noble vraiment on avait salué salué sa venue mm. parce que à l'entendre parler il était au euh, au côté de la population mm. mais aujourd'hui ce qui se passe sur le terrain euh, di di di témoigne tout à fait le contraire mm. parce que tey jii li ñu gis ci terrain bi mooy ñuy dumawaate ñuy dóoraate ñuy tëjaate te ba nga xamante ni arrêté nañ les leaders arrêté nañ population bi tey jii not nañ leen ba kenn nungul wax ca ñu ngi kon di def seen liggéey. kon ministre bi ñëwee ginnaaw tabaski bi dafa bëggoon ngeen d' accord ci li leen ICS bëgg a jox. maanaam ci li leen ICS bëgg a jox ñun d' accord moom mu arbitré wane waa ICS ni leen li ngeen def c' est ba pare retourné waat ànd ak waa ICS ci suuf. d'accord ICS euh, dafa bëgg a yaatal euh, euh, fi nga xam dafa bëgg a yaatal production mu dugg ci commune Mewane léegi donc bari na village yu mu déplacé d'accord tool ya mu bëgg a jël dañ caa tàmbale woon bay tàmbale woon nañ ca mbay actuellement nii tëggaate nañ sunu mbay yàq nañ sunu mbay ba léegi bi fi nii pour ñu dem sool sax problème ndaxte mënu ñu leen sax ñu accès ci ci fi mu ne nii te tàmbale woon nañ caa bay te tàmbale woon nañ caa bay léegi loola yàqu foofu fas yéene ngeen dem ci yoon wala waaw incha allah ñoo ngi organiser wu ñoo ngi jéem a wut ay avocat euh, parce que simplement am na ñoo xamante ni martelé nañ leen euh, am ci aussi occupation boo xamante ne ay ñetti fan euh, ay deux jours nga toog ko demoo ci sax ba pare ñu jël seen tool teg fa seeni i oto seen i machine donc di yàq suñu culture loolu moom incha allah ñu ngi ciy jóg te ñoo ngi wut ay avocat hmm. alors euh, lu aju ba tey euh, ci wàllu woowu taxawaay ban la ci euh, maire bi am wala ñi nga xam ne ñoo fay kilifa ca gox ba. maire bi ak kilifay gox bi mën na ne dañoo seetaan ndax jusque là dégguñu le sous-préfet nga xam ne moo fa toogal état dégguñu ko mu prononcé wu ci le maire Bara Ndiaye donc moom il ne gère que la maison de la presse il pas la commune de Mewane donc ba nii nii nii nii nii ñëwoon na ci table de négociation ba il était au côté de la population mais ba nii nii nii ci problème bi déggaatuñ ko la fois passée bi njëkkee am problème bi mu ñëwee dañu yëgu ko woon xëy na comme ni mu ko waxee boo demee da koo yëgul loolu moo lay wane kon maire bi ñun ñun le maire de Méouane kon ñun administré wuñu parce que problème bu toll nii bu ñu amee ñaari fan population ñu martel le d'un village ba léegi prononcé wu ci cela veut dire kon kooku géré wul commune nu waaw mën nañu daal maire bi dañoo seetaan. mais ci ndoxteel gi euh, ñëwoon na bokk ci waxtaan yi. booba waaw booba ñëwoon na ñëwoon na bi ministre bi ñëwee ñëwoon na ñëwoon na. lan moo nekkoon taxawaayam. booba euh, quoi que l'on puisse dire était au au de la population. am yéen la àndaloon ci li ngeen bëgg. la àndaloon ci ci ci ci ci véritablement li ñu bëgg parce que rappelé na ministre bi ni ko indemnisation bi donc dafa faible et cetera. mais actuellement ni ba léegi dégguñu ko moo lay wane kon actuellement dafa dem ànd ak ñooñu hmm. voilà. d' accord kon yow su ma la déggee xalifa euh, waameewaan bañu ñu joxe suuf si. waaye déedéet bañuñu ko bañuñu ko. Hmm. bañuñu joxe suuf waaye nag ñun affaire indemnisation moo ñu jo moo ñu boole ak ñoom. Hmm. liñ ñu taux bi ñu bëgg indemniser moom ñun d' accordul ñun dañoo bëgg ci taux indemnisation bi ñu indemniser woon waa Mbaar. ak yeneen dëkk yi njëkk njëkkoon a déplacé nga xam ne àgg na ci ba onze millions hectares loolu lañ bëgg ñu indemniser ñu ko ñun dafa am injustice ci indemnisation bi loolu la population yi bañ mais xam nañ ni suuf si mënuñu koo bañ a joxe parce que loo xam te ne état moo ko moom. Hmm. état donc mënuñu ko bañ a joxe mais nag. Euh, vraiment li nga xam te ñun warloo na ko ak ñun kuy jël sa suuf warloo ak yow dara loolu noonu la ñuy laaj ñun. d'accord léegi kon fi mu ne ICS di amal seen liggéey waaw ñu ngi kon ni di amal seen liggéey. teg nañu loxo ci suuf yi ba noppi. teg nañ loxo ci suuf yi fi mu ne nii ba pare martelé population bi. d'accord est-ce que tamit kilifa yi nekkul euh, xalifa dañoo njort tuuti politique ci biir ndax yow mi par exemple euh, yaa ngi bokk ci PASTEF nekk coordonnateur PASTEF Meouane ndax loolu tamit taxul euh, xëy nañu dal ci kaw waa FPD yi comme xalifa coordonnateur bi ak ñeneen. waaw FPD du mouvement politique c'est un mouvement politique la FPD la force pour le développement de Meouane donc nag euh, ñun ñu nekk ci biir ku ci nekk am nga sa appartenance politique mais bu dee ci biir FPD wax dëgg fa yàlla ku nekk kenn du fa politique moo tax man la léegi je parle en tant que damay wax ci turu euh, président commission sociale bu FPD mais kon biir FPD amul daray politique ku ci nekk am nga sa obédience mais feeñu luñ ko biir FPD hmm. combat bi ñuy combattre c'est un combat citoyen askan bi ñu tax a jóg ci askan wi la ñuy la ñuy jógee di dellu ci askan wi xeexal askan wi moo ñu tax a jóg amu ci kenn koo xam sa mbiru bopp la ñu ci bari sax dëkkuñu le village de Tobène la Cheikh Cheikh Fall boobu ñu ñu par exemple il n'est il n'est pas de Tobène hmm. pour te dire que ni amuñu ci ay intérêt particulier mais suñu population commune moom la ñu ñoom la ñu martelé insisté dal ci seen kaw ñuy sympathiser man mii di wax ak yow meewaan laa dëkk mais tey jii nu portons le combat tous sans exception tous les quatre vingt neuf villages de la commune de Mewane tey jii portent le combat. d'accord léegi ban taxawaay ngeen ci nar a am euh, pour la suite ndax bu fekkente ni continuer nañ di teg nii loxo. Euh, ICS tamit di def li ñuy def dafa mel ni ñàkk ngeen. en tout cas ñoo ngi woo ñoo ngi interpeller l'opinion internationale ak nationale bépp di leen xamal ni euh, bëgguñu li xew ci yeneen gox yi xew waan ñun suñu kuddu jàmm la ràcc mais ñoom ñu ñëw ak seen armada ñëwoon euh, da ngay euh, boo ñëwee foofu noonu da nga naan fii état de guerre la état d'urgence état de guerre la boo ñëwee foofu noonu kon ñooñu ñun nanuñu jàmm mais ñun suñu kuddu jàmm la la kii la ràcc te li ñu bëgg ñun actuellement ni ñu nous sommes en de nous organiser li ñuy def nag duñ ko wax kenn mais daal euh, avant que l'irréparable se produit donc nañu jéem a wax nañu jéem a ñëw ñu waxtaan force de l'ordre yi dellu fu ñu nekkoon ñu bàyyi suñ ñi nga xam te ne dañ leen a tëj arrêté leen muy Cheikh Fall Cheikh Top ak euh, toute la arrêté nañ fa plus de vingt personnes les chefs de village et cetera nañ leen bàyyi ñu dellu seen kër bu ko defee ñu continuer les négociations donc euh, euh, euh, fi mu ne à l'immédiat loolu la ñuy négocier ñun mm-hmm. voilà. ñu ngi la sant di la gërëm fàttali ni yow yaay président commission sociale bu force pour le développement de Meouane nekk dem itam coordonnateur Pastef Meouane ñu ngi lay gërëm.